Abdou Sané ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. bon maa ngi leen di tey. Euh, yow ngay environnementaliste waxtaan wi ñu sekk ko euh, jamono ji nga xam ne ñoo ngi waajal fekkee waxtu ubbi lii di COP 26 euh, tey lan nga jàpp ne mooy enjeu sommet googu ñuy amal ca Glasgow. voilà boo gisee réunion bi di am mooy réunion bu ñuy dimanche. dafa nekk réunion boo xam ne. day évaluer gouvernement yi. mu xam fan la ñu ci léegi nga xam ne ñoom ñoo ko noonu doon en 2015 ci Paris dafa am lu ñu déggoo ñëpp signé mooy lu ñu wax accord bu Paris mhm. adduna yëpp moo déggoo ñu ne comme adduna dafa am noo xam ne ni ñuy sonal tey ci jéew bi mooy lu ko nañu faj ci cause yi loolu moo indi donc ñëpp d' accord ne lii ak lii ak lii ñu war a def mhm. li ñu d' accord yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp am na dépense dépense boobu moom la wax contribution nationale déterminé prévu CRD boobu la docteur boobu la maanaam mooy loo xam ne moom nga war a fay ci dépense bu fekkente ne ba nga xeex li ñuy wax changement climatique mm-hmm. donc mooy contribution de la pays déterminé loolu kenn war a ko xoolee comme dépense dañ ko war a xoolee comme investissement mm-hmm. parce que boo ko defee tey dafay mettre à l'abri population yi ci yeneen risques yi yeneen accident yi ci yeneen feebar yi ci yeneen problème agricole mm-hmm. malheureusement bu fa jógee ba pare dafa am beneen accord boo xam ne boo dee comme dëkk yu mag yi ñoom bu ñuy commencé di def seen industrie mhm. ñoom ñoo njëkk a polluer donc ñoom ñoo war a defar mel ni ku bëgg ku war ñu ne léegi ñooñu war nañu d'accord pour jàppale dëkk yoo xam ne ñu néew doole lu ñu leen war a jàppale dafa toll ci cent milliards de dollars bu nekk moom la ñu war a jàppale dëkk yooyu mhm. Mhm. man accord yooyu mosuma ko gis parce que mooy accord accord yoo xam ne nekkul accord par force mooy lu tubaab di wax accord non contraignant su doon dafa nekkoon euh, accord contraignant mooy accord boo xam ne par force waaw d' accord mais boo xam ne ku mu neex nga respecté doo ko respecté mm-hmm. lu ñu la ci dig lu ñu ci dig boo ko gëmee ba jël loolu yëpp teg ko sa àdduna yow yaa nax sa bopp malheureusement mm-hmm. ñun suñu njiit yi fu ñu tudd xaalis rek ñoom ñu ngi xalaat dèjà ñi may amee xaalis bi gaa yi waxee cent milliards yooyu ba léegi dërëm dugg ko te ci diggante bi mm-hmm. boo demee ci dëkk bu mel ni Ndar géej gi foofu ñuy créé problème boo demee Bargny même chose boo demee ay Cap-Skirring chose boo demee dans les villes îles yi ñuy disparaître benn par benn te seen dégul mhm. tey ñun lu ñu a def mooy lan gëm suñu bopp gëm sa bopp mooy lan yow xam nga ci sa dëkk lan moo waral changement climatique bi lay sonal mhm. seetal lan nga war a def ci sa budget bi ba nga xam ne yaa koy fajal sa bopp bul toog fi di xaar keneen di am yërmande ci yow pour mu jox la xaalis nga soog a malheureusement comportement bu africain am mooy comportement comme xale buy jooy muy xaar ñu jox bi borom <laughs> alors léegi rencontre bi su ngay demee ba foofu mhm. dëkk bu nekk dafay jël micro day jël parole boo boo jëlee parole ba pare da ngay wax man bi ñuy jëlee signature bi ba léegi mhm. fii ak fii ak fii laa toll lii ak lii ak lii laa def mhm. donc évaluation à mi-chemin évaluation boobu lan moo ko indi c'est parce que agenda deux mille trente c'est prévu deux mille trente objectif du développement durable war nañ ko bu a atteindre. Uh-huh. mais lu leer la ñu wax dañu ne mënuñu ko atteindre bu fekkente ne apporter une réponse bu dëgër par rapport au changement climatique parce que bay ba nga tabax lu lu rafet lu ñoo tas loolu yëpp tey boo jëlee par exemple tourisme toutes les plages yoo xam ne ñu ngi disparaître. Uh-huh. pour plage disparaître parce que manque à gagner parce que tourisme du dem. te yow tourisme bi bu demul c'est-à-dire du ñu liggéey. Uh-huh. ay nit bu ñu liggéeyul c'est-à-dire dañuy nekk foofu. donc objectif de développement contre la pauvreté déjà moom ko ensuite du point de vue de la santé. changement climatique dafa changer climat boobu am na ay feebar yoo xam ne ñun on connaissait pas ça léegi feebar yooyu ñooy ñëw donc objectif de développement pour ODD pour lutter contre les maladies doo ko atteindre donc le lien entre les ODD ak les changements climatiques est établi lu leer la léegi bu fekkee yow leer na li nga war a def mooy lan da nga war a comprendre ni léegi su bëggee am résultat bu baax. Hmm. il faut que ñu maîtriser changement climatique. lu mu jar jar na ko. moo su ñëpp raisonné bi te dañ ci toll tey def réunion ci ay action la ñu def. d'accord kon yow gisoo euh, euh, bi maanaam sommet mel nii. ma ne COP COP COP benn ba 26 mooy 26 ans. 26 hmm. ans jënd ko ci sa âge xale bu tuuti ngay doon. comme sama genre salle ay COP parce que bala ngay dem COP da xam lu lu ngeen décidé parce que COP bi ñu mu mooy borom hôtel yi ak borom avion yi ñu ci na leneen loo xam ne moo waroon nekk suñu priorité lu dul ay région yoo xam ne du jur dara mooy lan na nekk toog am na loo xam ne moom la ñu def ci évaluation dëkk yëpp mooy lu ñu wax contribution nationale prévue déterminée mhm. maanaam lan laa war a def pour que changement climatique bañ a am. ñu jox la ko ñu ne lii la jar en milliards de francs CFA par exemple loolu nga war a tey mooy mooy garab bu mooy garab bi par rapport changement climatique. boo ko defee dootoo soxla di lire fii ay rapport yoo xam ne ñu koy bind sax gëmuñu ko duñu ko lire dootoo soxla fii ay rencontre yoo xam ne boo seetee lu ñu dépense pour une COP. si je demande est xaalis boobu ñu ko yoroon chaque année pour changement climatique bi ñu doon régler pour changement climatique. ndax duñ dem. plus de dix mille personnes ñoo fay dem. ku nekk jël na avion ñoo fay daje. waaw at bu nekk koy def at bu nekk ba ngay def ñaata ñaata lay représenté en milliard. d'accord experts yi ñu foofu nga war leen fay par jour yëpp. xaalis boobu tey ko doon daje dëgg bu ñu ko doon dajale dëgg dëgg dëgg est-ce mhm. nga wax ko ci seen biir wax que jëfin. li ñuy jëf Sénégal nag boo bëggee ñu tàccu la il faut être un beau parleur et zéro action on dirait que c'est le meilleur des Sénégalais. faaw wax ji bëri loolu moo ñu tardé loolu moo moo répercuté au niveau des relations internationales en matière de diplomatie et en matière de négociation surtout le développement particulièrement ci affaire changement climatique. juróom-benni at gannaaw accordu Paris boobu euh, jëm ci climat yi ndax tey jàpp nga ne ci ndaje googule donte amoo ci benn yaakaar euh, ni ña fa nekk acteurs yi dinañ ci génn ay solutions yi tax Euh, mën a téye li nga xam ne mooy réchauffement climatique bi euh, ba mu gën a wàcc un virgule cinq degré Celsius. man de gisaguma lu bees loo xam ne pratiquement moo mun a tax moo mun a tax ma séntu dara ci ci rajo bi xanaa xanaa lu li bees mooy lan Trump dab na Biden ñëw Biden dellu ci wat ci accord Paris parce que Trump bu mu fi nekkee dafa jar dafa ne moom gëmul affaire yi mu démissionné. Mhm. Biden ne man je bien je suis là-dedans. Mhm. donc Biden ñëw na mais le problème de Biden mooy bàyyi doon dafa jël affaire bi mu ne dee ñëwaat mais bu fekkee dafa ñëwaat engagement yu américain yëpp jëloon dinañ ko respecté mais yooyu alal bu ñu waroon jël pour boobu covid dix neuf ñëw na tas aussi problème boobu avec le ah, coronavirus tey dëkk yëpp ñu ngi profité ci coronavirus même ñoo xam ne mosuñu cotiser ci coronavirus léegi la ñuy sukkandiku pour justifier seen ñàkk contribution ko ci wax ba naan sama économie bi dafa li may cotiser ba léegi da ngay seet aujourd'hui impact Covid bi au niveau de toutes boo xam ne dañu ne pour mise Paris dafa ay milliards yu bëri yoo xam ne moom la ñu war a teg pour ñu mën ko ñëw pour ñu koy jëlee même Sénégal bi tey loolu la soo leen laajoon ñu naan le coronavirus bi tax na ba tout le secteur est secoué y' a pas d' argent et comme pour euh, c'est une pandémie mondiale donc pratiquement région bi région boo xam ne ce sera pour juste réajuster Euh, yeneen engagement yi pour pousser askan ba ci kanam et le changement climatique n'attend pas bés bu nekk ñu ngi manifesté wu bés bu nekk ay ñu lor bés bu nekk ay économie ñu ngi disparaître à cause de ñu wax ci Sénégal particularité am tey jii euh, amoon na jamono ñuy promouvoir économie verte ndax yow gis nga tey ay jéego yi nga xam ne euh, boo xoolee di nga ne ah ñii kat ñoo ngi ci yoon wi non Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne day bëgg a nekk à la mode cest à suñu gouvernement mhm. lépp lay signé lu ñu wax signé ñoom la ñuy mais anti signé ay respecté foofu moom beneen affaire la Sénégal mooy dëkk boo xam ne ruus ñu signé ba pare dañu respecté économie verte bu ñuy wax noonu lépp slogan kese la nan nga mën a comprendre ñu naan tey dañuy lutter contre changement climatique mhm. et que la place de l'arbre mooy garab garab dafay jouer bu rëy parce que dafay joxe oxygène ci heure boobu le président di def ay déclassement forêt. déclassement waaw noo mu ne comprendre que Sénégal nee Gambie mooy son nabi ñuy permettre déforestation clandestine hmm. par la Gambie ba foo xam ne forêt la bu nekk aujourd'hui ay désert. est-ce que loolu c'est une position en faveur du changement climatique. Hmm. Hmm. non noo ne comprendre Sénégal te yore ay oto yu gën a màgget fii baissé âge oto yi à huit ans pour oto yi ñëw fii oto yi tey boo duggee ci biir Dakar. saxaar bu ñu jëlee loolu yëpp c'est des gaz qui sont en train de menacer et qui sont en train de contribuer au réchauffement mm-hmm. boobu attitude boobu déggoo na ak ñun engagement bu ñuy wax entre suñu wax ak suñu jëfin mm-hmm. dis donc Sénégal boobu di promouvoir ay centrale à charbon au niveau de Sendou Bargny est-ce que loolu attitude la pour promouvoir changement climatique je dis non pour wax la ni entre lu ñuy wax ak def bokkul donc tey tey il faut carrément Euh, du dénoncer l'hypocrisie de nos lu ñuy wax bokkul ak lu ñuy def naa bëggoon te ngeen nekk reportage ngeen dem seen luy jot daal kenn nekkatu foofu da ngeen déplacé yóbbu leen dans un xaar yàlla hmm. parce que géej bi moo ñëw nangu seen kër nangu mosquée bi nangu école bi boo demee Cap Skirring même chose amul benn action bu am ñooñu ñëpp la mer est de menacer boo duggee dans les elles sont même oubliées par les pouvoirs publics les villes tey koo dem dans les villes seen problème numéro un mooy lan ndox bu ñu a naan pourquoi parce que avant seen la mer bi moo indi xorom ci ndox bu ñu war a ndox di jël ay gaal di dem wuti ndox à des et des kilomètres te ndox dafa nekk loo xam ne moom ngi atteindre objectif du développement ndox moo war a nekk au cœur et c'est pas par hasard que Sénégal war a accueillir forum de l'eau lan la ci def mhm. on en matière de sensibilisation. Mm-hmm. la RTS bi nga xam ne service public la. jox ba ban ban temps d'antenne la ñu accordé pour sensibiliser les populations pour amener les populations et les communautés à se mobiliser en faveur la promotion du changement climatique. Mm-hmm. bu am na man yëg ma ko gis ma ko. télé bi mi ngi wane leneen loolu nii donc pour la nii on n'a pas élevé ça en termes de priorité nationale. mais bu voyage jotee ak Sénégal bi mu voyage rek Sénégal kenn rawulam bu ñuy ñibbi rek kuy wàcc aéroport fàttali engagement bu mu jëloon ba déwén l'année prochaine bu encore rek ñu jëlaat yeneen engagement yu bees mel ni Sénégal tey la avec ça on va toujours rattrapé on va être toujours rattrapé pouvoir boo xam ne ci yéen a waroon am pour amener le gouvernement à respecter ses engagements ngeen teg bii ngeen gouvernement bi point bii waxoon fan ngeen toll boobu tam amul donc la citoyenneté aussi se manifeste société civile nga xam ne ñoo war a jouer rôle boobu malheureusement ñoom aussi elles ont accepté de se faire aliéner parce que lan la dañu jege trop gouvernement bi dem na ba même ci délégation bi dañ leen dugal ci seen bagage yóbbu donc amuñu contre pouvoir tout ce uh-huh. accord jeexalee wax nga sax yenn ci facteurs yi nga xam ne euh, rapport bi souligné na ko euh, bu Groundwell Africa quatre vingt six millions africains ba moyul euh, dinañu gàddaay fii lek deux mille vingt li ko waral mooy changement climatique yi ban jàngat nga def ci boobu les rapport boo jëlee beaucoup d'environnementalistes dañuy naan rapport yooyu kat am na ñu koy def xaalis rek la ñu parce de nga bind Nations Unies yi nga xam ne ay rapport la ñu nekk man je travaille pour le bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de ñoom ñooy sax ñoom ñooy yore affaire bi je fais partie des consultants de Nations Unies mais xaalis bi am ngay xalaat que wax da ngay rapport boo xam ne ñoo sax ñi ko moom sax ko lire dañ ko lire koy jël simplement ñoom dañ koy jël pour dem waxaale ci projet yi pour am xaalis pour ñu yërëm leen. ok dañ ko def affaire xaalis mais tey war nañu dépasser ay rapport war nañu dépasser ay colloque. Mm-hmm. war nañu dépasser ay séminaire mm-hmm. war mais dañu war a privilégier l' action lu ñu war a def ñëpp xam nañ ko. war nañu def un reboisement intensif mais reboisement doo ko def au moment les autres sont en train de couper des arbres ça n'a nii on a une agence pour la reforestation mm-hmm. nga créé ko ba pare ñu naan ne Sénégal c'est la ñu gën a couper les ay drôme bu dee volonté na ay am nga surveiller la cadence parce que ñoom souvent dañuy nekk avec la rébellion amul sécurité donc ay drôme ngay jël pour di di góor di nga ko situé di nga ko identifier nga sanctionné ko mais volonté politique bu amul corruption bi aussi amul mauvaise gouvernance système doo dugg ci ku nekk di diil pour ci forêt bi pour am xaalis boo ñëwee dans les forêts du sud y a rien boo demee dans les forêts de l'est à Tamba y a rien et au même moment on est là à dire que il faut lutter contre les gaz à effet de serre en faisant la reforestation mais c'est contradictoire d'accord donc action la ñu war a privilégier nañu dépasser ay rapport ou autre la réponse ne viendra que de la volonté politique et de la seule action nga xam ne c'est une action sincère bu ñu ko defulee ñooy nax suñu bopp parce que érosion côtière bi di avancé sécheresse bi ñu gën a aggravé déplacement de population en ce dina am ba nga xam ne même euh, ça peut ouvrir des conflits agriculture léegi kenn mënatu ko def boo jëlee Casamance aujourd'hui toute la partie ouest de la Casamance. Mm-hmm. avancé sel bi tax na ba les d'accord munoo ci tëb yeneen affaire yi et cetera tout et tout. donc ay am yoo xam ne. war nañu mën a indi bu ñu am beneen comportement bokk plus sérieux beaucoup plus rigoureux pour mhm. comprendre que du pour ñun tout court pour nos générations à am na lu ñu war a def tey pour être dans un monde résilient. monsieur Abdou Sané ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di fay.